mbokk yi asalaamaaleykum mbégteex bànneex la ñuy am àllarba bu jot ci waxtu bi di 28h ngeen jàkkaarloog seen euh, télévision Walfadjri leeru jamono si seen émission bi le di euh, célébé yoon dama koy baamuwaat célébé yoon dañu fiy pencoo lépp loo xamante ne dafa yemook actualité ay bés bi askan wi ñu ci bëri samp ci laaj ci seen i biir kër ci grand place yi wala ci bureau yi bëgg ñu leen ciy gindi saa su jot ñu fiy dalal ñoo xamante ne seen xam-xam day màcc jëm ca fànn boobu tey euh, suñu plateau ñu dalal fi honorable Aminata Diallo fare ci parti socialiste de valeurs ak ki nga xamante ne moo di honorable Aline dara Diouf fare ci alliance pour la république ñu nar fi penco lépp loo xamante ne rek doxalinu bi réew mi la du ñu def lu dul bàyyi suñu ay gan ñu nuyoo ba noppi ñu doog a xuus ci li nga xamante ne moom moo di euh, waxtaan bi Aminata maa ngi lay nuyoo maa ngi lay fay Awa Diop Euh, di nuyu téléspectateur Walfadjri fu ñu mënta nekk ci àdduna bi muy diaspora bi ak euh, fii ci Sénégal et à l'intérieur du Sénégal. Mhm. jërëjëf euh, Alioune Badara yow tam ñu ngi nuyu. maa ngi lay fay aw Diop di la nuyu di nuyu téléspectateur Walfadjri yëpp di nuyu également Aminata. Mhm. n'est-ce di leen di souhaiter vraiment un bon débat. macha dina dinañu xuus tey comme ni ñu ko waxee dama cité ne ñaari honorable lañ fi dajale suñu ne honorable mooy ñoo xamante ne euh, takk nañu raayab réew mi teewal leen ci pencum ndaw réew mi mu di assemblée nationale. kon ponk bi ñuy njëkk yëkkati ci loolu rek lay aaju mi ngi aaju ci li nga xamante ne ay bés bi yëpp ñu ngi koy waxtaanee. kaddu yu bëri tàmbali ci jukk muy euh, mbirum euh, ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Bamba Dièye li ni mel daf ñuy may ñu prox ndollu itam dem ci wàllub yoon na ci jamono ji ni muy euh, doxee waaye ponk bu njëkk bi moo di ñëpp xam ne ne woolu woon nañ ko gannaaw dañu yëkkati jàpp ne dafa yëkkati ay kàddu yu teggi newul teg ko ci derul ñi nga xamante ne ñooy suñu ay euh, magistrat waaye ñu gis ne ab député la mu am maaraanu kiirlaay boo xamante ne moom moo nekk ci kawam ndax li ni mel moom moo dem taxul euh, demul euh, wuy ji waaye beneen ponk ñu gis ay naataangoom député yu fare ci groupe Benno Bokk Yaakaar xam leneen ñoom pare nañu su din suñ leen saisiré pour ñu xool naka la ñuy def pour yëkkati malaanu kiir laay boobu est-ce que demuñu kon tey jii ba nasaxal li nga xamante ne moo di malaanu kiir laay bi nga xamante ne jox nañ ko député yi tàmbali woon nañ ko di ko wax ci mbirum Barthélémy Diaz ak ki nga xamante ne moom moo di Khalifa Ababacar Sall euh, tey Aminata naka nga gisee doxalin boobu rawatina ci euh, charte yi nga xamante ne moom moo tënk pencum ndaw réew mi rawatina ci li nga xamante ne moo joxoon gëdd député député pour accéder ci moom doonoon loolu jafe mais tey ji suñu demee ba dañ ko soofantal dem ba ay seen ay ñooñ sax yaa xam ci taxaw pour ñu yëkkati malaanu kiir laa gi seen beneen naataango waaw xam nga ah, jamono day dox Awa Diop Ndiaye euh, depuis quelques années nag seetlu nañ ne assemblée na mu meloon melatu ko na député bi sax na na mu nekkee woon amoon sutura amatu ko parce que léegi da ngay dégg ñuy ŋawti ŋawtee salaire u député donc lépp foofu la nekk ci société bi la du ci politique bi kese société bi ci boppam moo xàmmeetul son député parce que député bi dem na ba politique lay gën a def que nekkal euh, ñi nga xam ne ñoo ko fal mais politique aussi moo ko fal donc day xaw a metti def dosage am na ñoo xam ne mën nañ def dosage bi maanaam di wax en tant que politique mais léeg-léeg di wax ne ah nit ñi nga fi nekkal nga waxal le peuple léegi loolu nag boo ko mënul def nag day xaw a jafe affaire Cheikh Bamba Dièye nag lu yéema la lu fi nekk la Euh, lu lu bàyyiwul Khalifa Sall mënut a bàyyi Cheikh Bamba Dièye lu bàyyiwul keneen mënut a bàyyi Cheikh Bamba Dièye waaye boobu dina doon ah jàpp naa ne dina doon euh, lu tàng jir parce que du lépp la ñuy laal xam nga Karim nga exilé ko Khalifa Sall nga jàpp ko injustement arbitrairement nga bëgg cee teg Bamba Dièye ce serait injuste parce que de un dégg nañ fi ci mbirum CEDEAO bi man dégg naa ay ministre de la république ay ñoo xam ne ñoo représenté suñu république di ŋaññi député de la CEDEAO di leen wax sax ay corrompu lañ ba di wax sax ne seen seen mandat dafa jeex di leen soofantal kon ñooñu bu ñu waxee loolu Bamba Dièye sañ na ko wax parce que ñooñu ñoo ko njëkkee ñoo ko wax kon Bamba Dièye sañ na ko wax Bamba Dièye dëgg gi rek la wax parce que réew mi fu mu toll la coow li bari tension sociale bi xol yi metti te avant dañ daan nekk ñii nekk opposition ñii nekk pouvoir waaye ku nekk di nga xam sa place xam ne yow opposé wu nga war a def kii xam ne ni moom mooy gouverner mais léegi ah dafa mel ni amul opposé wu ku opposé wu daal buntu rëbës ubbeeku na mhm. ku opposé wu daal buntu rëbës ubbeeku na te affaire bi warta nekk plan Sénégal emprisonnement dafa war a nekk plan Sénégal émergent comme ni ko bindee mais dafa nuroog plan Sénégal emprisonnement te loolu moo rafetul ci réew mi te assemblée nationale warta nekk euh, benn benn pencum boo xam ne ni pour opposant bu yëngu rek ñu wàccee sa mala manaanu kii la yóbbu la prison du loolu mooy rôle assemblée nationale am na yeneen lu ñu koy xaar ndox maa ngi fi mhm. ah deret baa ngi fi ah courant bi mu ngi fi yooyu la ñuy xaar pencum ndaw réew mi yeneen ñi nañ ko bàyyi politique politicienne bi peut-être mu lijjanti ko mais pas à l'assemblée nationale mhm. euh, mu mel ni Alioune Badara su ma déggee yenn ci député yu bokk ci seen kuréel Benno Bokk Yaakaar boobu lañ def appel du pied ndax dañu ne ñoom ñi ngi xaar suñu leen woowee pour ñu lever immunité parlementaire bu Cheikh Bamba Dièye euh, tey ji est-ce que tey jii seen rôle moo doon toog ji euh, immunité parlementaire boobu ndax autant soo déggoon nit dindi nañu immunité parlementaire am rek c'était pour faute grave mais tey jii immunité parlementaire tout au début ñu ngi ko doon wax di ko ñaawlu naan si li suñu jëm mooy ñu soofantal ko. voilà merci Awa Diop xam nga euh, bu ñu waxante dëgg quand même assemblée nationale du yëfu caaxaan. député yi yaakaar naa ne bëri nañu ils sont au nombre de cent soixante cinq te opposition bi aussi am nañu fa lim bu xaw a takku nekkul ne euh, ku ñu si neex rek dañ lay jël summi sa sa malaanu kiirlaay loolu amul donc il faut que ñu nangu quand même ne ku deful dara wala ku waxoo dara euh, duñ la yóbbu si yoon bay dina sa malaanu kiirlaay te tey jii euh, yaakaar naa ne assemblée national c'est le pouvoir législatif nekku fi pour di gàllankoor quand même le pouvoir exécutif c'est deux pouvoirs euh, yoo xamante ne ni dañu war di euh, complémentaire euh, de telle sorte que bu fekkee ne exécutif soxla na législative par collaboration républicaine war na ko mën a jàppale si lim ko soxla tey ji autrement dit parce que tey bu fekkee ne benn député dañ ko bëgg a euh, yóbbu si yoon te war a summi malaanu kiir laay mais assemblée nationale rek ko mën a def muy député yi est-ce que dañuy toog ne comme que député la duñ ko summi je pense que loolu du seen rol rôle yóbboowuñu leen assemblée nationale ngir loolu. mais est-ce que duñu poser le pour et le contre est-ce que ñoom duñu xaar ba ñu saisir leen mais ñoom dañu def appel du pied. non non dañu ne. man déglu naa la président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar muy wax muy Aymérou Gningue mhm. Aymérou daf ne ñun dey euh, wax dëgg neex yàlla kenn saisir guñu ci affaire Cheikh Bamba wante heure bu ñu ci saisiree danañu def suñu liggéey loolu la wax euh, pour te ne euh, tey jii Cheikh Bamba Dièye li mu def man jàppoon naa ne jàppoon naa ne te weesuwul xam naa ne procureur dina auto-saisir euh, dem na ba nga xamante ne bi mu ko njëkkee wax bàyyi nañu mu jàll ba mu am quelques jour boobu mu mënatu ñoon wax flagrant délit parce que nag immunité parlementaire quand même mënul du couvrir flagrant délit loolu je pense que règlement intérieur assemblée nationale wax na ko du couvrir flagrant délit moom ñëwaat na ñëwaat na dellu si si maanaam ne li ma wax tey laa ko gën a firndeel mhm. ñaari juges yi may waxal sont corrompus donc loolu ba tax na je pense que jaratul aujourd'hui euh, ñuy xaar ñu su summi dindi malaanu kiir laayam dañu ko war a euh, procureur fu mu ne nii da ko war a convoqué n'est-ce pas traduire ko en justice ñu door a wax si waxu mais tey jii est-ce que ces propos là war jar na euh, autosaisine wala interpellation wala dara parce xam nga il dit tout ce que. non tout le xam nga tey jii. bon Aminata ni mu ko waxee. non non début de la république jug nañu di ŋañ yeneen. juridiction non non cest dire que Aminata même bu ko xalaatee moom xam naa ko xam naa ne du wax wax ju tegg newul noonu ba tax na euh, je pense que kii lii lii mu def nii xam nga tey kenn sañul wax ne c'est un problème politique. adversaire politique lañ bëgg a liquider kenn sañu ko wax parce que amuñu problème ak le président Macky Sall amuñu problème avec euh, euh, li nga xamante ne mooy les partis politiques d'en face ñoom ñi ngi am mi ngi am problème ak justice n'est-ce ak nest euh, ay juges donc ñooñu ñooñu la joteel donc ñooñu je pense que ne tey bu kenn xaar ñuy wax ne Cheikh Bamba Dièye dañ ko yóbbu si kii bi parce que dañ ko bëgg a empêcher mu dem élection te aussi ma yokk si ne tey bu ñu ko doon wax itam Cheikh Bamba Dièye n'est pas un opposant gênant dernier élection yi mu dem élection présidentielle ñun xamuñoon woon poids am jamono yooyu j'avoue que ne même man mi bokkoon naa si ju doon wax ne dafa war a def coalition ak président Macky Sall comme ça Macky Sall bu jëlee pouvoir bi def ko premier ministre croyant que ne euh, ku am nit la ndikete euh, borom coowi kese la <laughs> parce que ba mu demee si élection yooyu gis nga dafa génn ak 1 pour cent léegi nag am na ñoo xamante ne c'est des activistes am na ñoo xamante ne euh, c'est des politiciens activistes am na ñoo xamante ne c'est des activistes tout comme comme Cheikh Bamba Dièye je pense que tey jii fu mu ni mm-hmm. li mu bëgg mooy euh, nit ñi euh, seen xel nekk ci moom n'est-ce pas mu xam nga créer buzz capital sympathie je pense que loolu lay wut parce que uh-huh. tey jii yow gis nga ne Cheikh Bamba Dièye en âme et conscience il il n'a rien. loolu moom dara <laughs> leeruma ci mais Aminata tey euh, Alioune li mu wax euh, moom moo di ne propos yu Cheikh Bamba Dièye yi euh, war na mun a valoir benn poursuite boo xamante ne moom mooy dal ci kaw mais suñ comme ni nga ko waxee ci ndoxteel yi am na yu bëri yoo xamante ne wax nañ ko comme ni ma wax sànq c'est ce que les moom la wax tout Euh, tey jii daf ñuy indi ci problème mu suñu justice tey jii si ban justice la ñu war a fiyewu tey jii bu fekkee ne est-ce que amuñu benn justice à deux vitesses. mais Abou Diop loolu loolu xale yu ndaw yi sa xam nañ ne c'est une justice euh, au Sénégal nous avons une justice à deux vitesses ba mbirum Khalifa Sall wane na ko démb mbirum Karim bi ñun ñëpp ñoo waxoon ne pré yi nañu def reddition des comptes ñun ñëpp ñoo ko waxoon ñi ma ko ñu ko waxoon ci laa boobu mais au finish fan la mujjee ay exit sénégalais yi xamuñu sax naka la demee exil boobu kenn kenn mënu ko expliquer c'est pas normal mbirum xalifa sàll moom c'est encore plus flagrant adduna bi ñëpp xam nañ ko tout le monde est d'accord c'est une liquidation d'un adversaire politique de taille bu Bamba Dièye bi nag bu Bamba bi boobu de bu amee ma xam ne nag boobu nag mooy la goutte d'eau qui va faire débos euh, euh, déborder le vase man maa la ko wax gis nga Bamba Dièye mii li ñuy jéem nii bu ñu ko fi defee billaahi dina am lu xew man maa la ko wax quand il dit que c'est pas c'est pas le, les politiques mais depuis lors Téliko de laa ci dégg mu wax ci waaw à part Téliko monsieur le ministre de la justice te ministre de la justice moom am militant APR la ci Rufisque ak politiciens yi ñoom dong ñoo joxe bu fekkoon ne affaire de justice la kon nañu bàyyi magistrat yi wax ci te am nañu yeneen yu gën a garaaw ndax ma Mbaye ñaa wax na fi 29 milliards laa am trou waaw wax naa ne nañu def ci kooku lan moo tax euh, procureur autosaisir wul kon am na feneen code baa ngi fi lan moo tax auto euh, procureur autosaisir wul donc y a des yoo xam ne ni am na ay problème yu gën a sensible yu am fii ci dëkk bi yoo xam ne kenn waxu ci kii jóg répété wax ni ay moromam li ñu wax ñu ne ko non moom nañ ko jàpp ministre yooyu déedéet parce que si si si parti au pouvoir lañ bokk loolu kese la affaire bi jaay doole kese la du mbirum magistrat loolu la ñu inculpé Barthélémy Dias si on laisse passer l' affaire de Bamba jee aussi day yomb torop dama ne question affaire bi du question de yomb wala leneen on n'est pas dans une dictature wala dans une armée on est dans un état et dans une république ci république na chaque phase déjà gis nañ climat social bi ni mu mel ci république nag bu ñu tollee ba fii li gën mooy li nga xam ne ni day décrisper climat social bi moo ko gën mais bu fekkee ne chaque jour dañuy nekk ci ay tension loolu baaxul ci réew te ci baaxul ci président de la république donc bu fekkee ne du dictature Cheikh Bamba Dièye dafa répété li ay moromam wax dong ndax ay ministre wax nañ ko fi ñun ñëpp gis nañ ko Cheikh Bamba Dièye wax ñu yóbbu ko affaire bi kumba am ndey la ak kumba amul ndey donc voilà une justice à deux vitesses. mais tey jii est-ce que une autorité war na mun a toog euh, gën a décrédibiliser suñu justice même bu fekkee ne li am na est-ce que moom moo war a wax euh, li mais xam nga am na ñoo xam ne ni mun nañu wax dara ci suuf te ñoom duñ ko wax ci kaw. mais am na ñoo xam ne lu ñu wax ci suuf dinañ ko wax ci kaw am nañu liberté bi ku nekk am nga liberté boobu mais quand même nag alerter c'est important parce que le fait que ñun ñëpp ñu ciy wax dana tax xanaa ñoo ñooñu ñuy waxal ah ñu leen seddee ci gaalu xaj duñ kon peut-être Bamba Dièye foofu lay waxee mooy ne ku nekk di nga répéter wax comme ça sunu justice bi au moins ñi nga xam ne ni peut-être ñoo ciy laaj yi wala li ci ñuul ci soow mi loolu mën a defaru mais bu fekkee ne kenn du wax kenn ñemewut wax na kañ lay defaru ndax mbirum Khalifa Sall ñëpp gis nañ ko xëy na jàpp doomu jàmbur na ay caisse d'avance ay xaw ma la lan caisse d'avance boo xam ne ni ka ko jàpp moo ko gën a xam caisse d'avance bi caisse d'avance boo xam ne ni amul benn base légale boo xam ne ni am nañ ko pour jàpp ko ñu dem ba CEDEAO ne non procédure bi elle est nulle et non avenue nulle carrément parce que l'article 5 de l'UEMOA dafa interdire te ñun ñoo ko signé ñun Sénégal dafa interdire ñu interpeller nit sans son avocat te man maa ngi fàttaliku le 21 février boobu maître El Hadj Diouf ñëw na dugg ñu dàq ko policiers yi ne ko doo fi dugg moom lañ soxla Ciré euh, Clédor ñëw dugg ñu ne ko kon kon nag bu fekkee ne article cinq de la de de mois kenn mënu koo respecté tey ñu xëy ay ministre saaga ay ay juge CEDEAO kenn mënu leen wax kon nag mën nañu wax ne ni c'est une justice à deux vitesses dañoo bëgg jàpp euh, Bamba Dièye parce que jàpp nañ ne ñoom ñoo am majorité assemblée nationale ñoom ñoo ko mën a simmi waaye xamoon xam nañ ne bu fekkoon ne ñeneen ñoo am majorité kenn du ko sañ mais tey ji euh, ak rëmu yi yëpp wax yi yëpp ñuy dégg est-ce que wanewul ne tey socle bi téye suñu justice moom moo nërmeelu ci boppam même ñi nga xamante ne ñoom ñoo di acteurs yi ñoom seen bopp décrier nañu euh, li ni mel et tey socle boobu su màbbee yaakaar naa ne askanub lémb moo màbb xam nga ay soto tey hmm, vraiment Sénégalais yi delloo ci seen xel parce que nag quand tey jii ku jóg euh, xas juge ni traité leen de de de corrompu te pourtant juge yooyu ñuy traité de corrompu ñoom bokk nañ si ñu gën a jàng ci dëkk bi bokk nañu si ñi nga xamante ne ñoo gën a am traitement salarial bu baax ñooñu soxlawuñu ñu leen di corrompre donc tey mosoo dégg aussi ku wax ne les juges sont corrompus te du politicien donc moo tax loolu. mais corruption duñ ko gis ñun doo ñu ne corruption ci niveau yi gën a mag. si les industriels ak autres. voilà si la ñuy nemmeeku corruption. kon nga xam ne kon question de. am wala dara kon nga xam ne. kon nga xam ne suñu juges yi dara jëndu leen pouvoir jëndu leen parce que tey jii ñu am nomination seen biir jarul dara parce que ils sont bien traités. ñooñ c'est c'est des c'est des dignes fils du pays sox et puis c'est c'est c'est des hauts cadres de ñooñu quand euh, seen seen seen parcours mayu leen sax ñuy def yenn yi. mais Amadou moo tax dañ leen war a jox cër respecté leen euh, bu fekkee ne ñu nekk ci seen biir ci seen bopp. ñoom ñoo génn di ŋàññ doxalinu justice bi ci boppam. déedéet non si traitement salarial comme ni ma la ko waxee ñi nga xamante ne c'est des nantis yor alal dëggantaan corruption ci seen euh, biir la ëppee te ñi doon mais mais dama lay wax ne la dama lay wax ne la par déontologie xam nga un juge tey parce que man am naa si ay xarit naa leen di fréquenter mais gis nga juge yi nga am fii si réew mi ñu jub lañu balaa nga ko doon xam sax nit nit nit am ay demele avec la justice nga demoon tey di leen wax ne Eh, sama kii de dafa am problème ak yooyu mais xoolal du ñu la sax faale du ñu la sax toppatoo parce que ñoom quand même eh, seen seen éthique ak seen morale mayu leen ko on a de grands juges au Sénégal. donc mais ça mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous voiler la ci góor bi ko faj. non xam nga li la koy woon mooy xam nga li la ko yoon mooy même suñu opposition bi bu teyee bu fekkee ne justice dafa tranché à leur faveur mais lu ñuy wax. ah mais on a une très bonne justice xam nga euh, la la la la la loi est dite du loolu la wax léegi nag bu ñu bu ñu bu ñu tranché à leur défaveur ñu ne les juges sont corrompus donc noonu la dikkee donc pour wax la euh, tey jii maa ngi dégg Aminta naan magistrats yi ñoom waxuñu mais union des magistrats déli ko moo leen jiite ñoom ñoom ils ont condamné fermement li nga xamante ne Cheikh Bamba mais après am na luñ ci teg également pour dire que ne le mal mi ngi ci seen biir le plus mhm. profond li ñu war a def kañ mooy jéem a redorer waat rek blason réconcilier les Sénégalais avec loolu xam ne loolu seen rôle la ñoom union des magistrats ñoom ñoo dajaloo vraiment euh, tënku si benn buum euh, pour xool quand ñoom am nañu sañ-sañ xool seen doxalin te bu ñu ko xoolee su metre ko à qui de droit ñu mën ko toppatoo pour te dire que ne ñoom kon condamné nañu lu Cheikh bàmba di wax ñun ñun ñu nekk assemblée nationale gis nañ ne Cheikh Bamba euh, am na arrogance boo xamante ne nii ak yaradiku boo xamante ne nii mu ngi koy mu ngi koy doxalee foofu ci assemblée nationale ba su ko doxalee ci mbedd mi jëmale ko ci juge yi walla jëmale ko ci ñeneen ñooñu dañ ko nangu am na benn jour il a manqué de respect au président Moustapha Niass ba ba président Moustapha Niass lu mu ko wax merci mon fils mais est-ce que du uute nu mu la gisee rek la lay dafa jàpp ne non mais xam nga gis nga Sénégal lañ ne gis nga il faut ñu joxante cër mu président mu Niass mot na ko bàyyi wóllëre bàyyam la woon te président Moustapha Niass ñàkkul ful la si réew mi ba ba ku jóg war koo mën a yab dafa am lu mu fi tekki dafa am lu mu tekki si diine ji dafa am lu mu tekki si état bi du dëgg ñàkkul fayda ba ba xale bu jóg bëgg koo yab manqué na ko respect biir assemblée nationale mu ne ko merci mon fils du dëgg donc yooyu doxalin yooyu nga am na ñoo xamante ne pour ñu feeñ danañ doxale nu ne danañ doxale nu ne pour mën a pour mën a fël mais Cheikh Bamba Dièye tu as vu tu euh, je te donne l'exemple euh, si si bu ñu bokkoon euh, pendant les législatives ah ami aminta du dëgg je pense que Khalifa moo doon tête de liste bi il y avait huit leaders de partis politiques yoo xamante ne yu fës ñoom Mansour Sy Djamil ñoom Cheikh Bamba Dièye ñoom Gakou ainsi de suite mais ils ont eu au finish combien de voix hein? ils ont tourné entre trois cent mille voix mais loolu si huit leaders politique donc xam nga donc bu ñuy wax seen poids électoral ñu ñu yaakaar ne peut-être euh, nous nous avons peur de ces de ces candidats là mais ay loolu ay waxu caaxal la ay waxu caaxal la amuñ fi loo xamante ne ni nit mën na leen ragal mais tey jii est-ce que du émission exécutif bi euh, dans le judiciaire moom moo indi problème bi yëpp yëpp yëpp yëpp parce que en général on dit que certains magistrats ont les mains liées tey jii. xam nga xam nga c'est-à-dire que loo gis rek euh, processus la xam nga tey jii président Macky Sall dafa fekk ministère de la justice ah am du dëgg euh, justice quand même ki ko coiffé le le ministre. léegi yàlla président de la république loolu lu mu fekk la. mais biñ ko waxee dafa comme que dafa ne dafa bëgg a instauré waat biñ ko waxee na démissionné ci présidence euh, de la maj euh, kii dafa bañ. non non xam nga sa à dire que daf ne xam nga président Macky Sall nee na moom il est prêt n'est-ce pas à tout nee nañu waxtaan mais loo gis processus la xam nga ses prédécesseurs mosuñ koo nangu Abdou Diouf dem na ba jóge fi xalaatu ko. Ablaye Wade bii nii dem na ba jóge fi xalaatu ko. mais président Macky Sall euh, on on toujours soulevé. on toujours soulevé comme ni ñu ko soulevé bii nga xam te ne c'est les acteurs eux-mêmes ñoom ñoo jug ne na génn ci. mais euh, problème là euh, ñu ñu koy wax mais président Macky Sall jël na courage am ne leen nañu waxtaan. man li nga xamante ne war naa koo baax ma ba ko si magistrature bi si problème aw ma si benn jafe-jafe na fekk rek mu doon lu ñu nangu donc kooku mm. processus la am na loo xamante ne ni ku ku ku nangoo toog di waxtaan mais bu ñu waxtaanee bu ñu juboo si yenn point mois je suis prêt à me retirer sur certaines choses donc kooku je pense que ne amul problème par rapport à sa le euh. climat social n'est pas tendu dinañ ñëw si je veux répondre à à ma chère collègue Aminata dinañ ñëw ci climat social bi ko tudd léegi daf ko mhm. le climat social n'est pas tendu xam nga lu tax n'est pas tendu euh, tey jii mais vous avez essayé partout vous avez essayé partout avec vos marches de de vendredi les populations ne sortent pas parce que ça ne leur concerne pas donc ils n'ont pas de problème du dëgg mais nag le politicien quand même moom lu muy jéem toujours mooy au oh, toi je me mets. je me mets donc ça ça c'est c'est c'est normal. d'accord Aminata tey euh, suñu jugee ci wàllub euh, justice bi comme que xam nañu ne potum biir néeg la euh, xëy na dinañ pot seen potum biir ut ci ay solution en tout cas ci prise en charge yenn dossiers yeeg yi ni mel si la ñu commencé di ŋàññi gis carrément ouvertement que ñu bëri dem nañ ba yàpp ñi nga xamante ne moom moo di justice bi mais à entendre parler Alioune Badara si comportement Cheikh Bamba Diaye à l'hémicycle ak entre autres avec euh, ces entre le président Moustapha Niasse sa montre que ne pour lever son immunité parlementaire du doon jëf boo xamante ne le jafe lay doon ça va passer comme lettre à la poste et c'est une autre porte ouverte à toutes les dérives comme on dit. voilà <laughs> xam nga assemblée nationale moom boo amee majorité mécanique loolu lay jëriñ. kon nag ah, ah, ah, majorité mécanique li muy wax nag ci diggante président Niass ak euh, Bamba Dièye jàpp naa ne ñoom ñaar la concerné concerné wul keneen bu politique parce que président Niass bu demee ba tontu loolu moom xam na li mu tontu kon loolu kenn waru koo jër di ko yóbbu ci mbedd mi bokkul bokkul loolu leneen la xam nga te Bamba Dièye mag la moo ñu mag ñun ñaar donc wax ko sax danga nga yaradiku mooy ne yow yaa ko yaa ko dépassé xam nga li ma la donc ça se dit pas mais loolu du ma ci du ma ci dugg di ci xuus trop li ma mën a wax rek mooy ne à l' assemblée nationale ñëpp xam nañ ni mu mel depuis euh, li ma fekkee 2012 euh, xam nañ ne majorité la boo xam ne dañ koy jox euh, l' exécutif le président de la république mu def ci li mu bëgg ku mu bëgg na saxal mu na saxal la texte bu mu bëgg a jàllale ak lu mu munta nekk mu jàllale ko ndax gis nañ fi ay acte 3 de la décentralisation ni mu demee woon ak fiasco bi ci am tey gis nañ fi ay simmi ay milaanu malaanu kiiraay comme par exemple ay ñoom Souleymane Ndéné Souleymane Ndeye ne PCA bay jël di wër waa PDS naan leen yéen ñii ñëwleen ñu dem jàppale fa la mujjee Ousmane ngoom anamu fu mu mujjee Awa Koudou Ndiaye fu mu mujjee kon nag assemblée xam nañ li muy jëriñ mooy simmi malaanu kiraay après nag ñu xool luñ la def boo nanguwul ñu yóbbu la fee ay PCA ak yooyu waaye jóge premier ministre ci PCA moom yàlla na ma ci yàlla musal ndax man ba jógee député moom wax dëgg yàlla ministre ci topp de la république waaye du leneen du wàcc ay PCA donc ku nekk ak ni nga xalaatee sa sa ay mbir ak ni nga jàppee sa àdduna un président jeune mhm. jël ay mag di leen këlli-këllee ñu nangu ko ñoo ko def ñoo ñoo ñoo def foofu seen bopp nit na foo def sa bopp rek ah nit ñi loolu lañ lay jàppee comme ni nga waxee rek uude nu ma la gisee noonu la lay ëwalee ah mbir mi nag doy na waar mais Bamba Dièye moom jàpp naa ni ah plan Sénégal emprisonnement bi rek la ñuy mettre en marche encore contre un autre opposant que ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi maanaam ñi nekk au pouvoir ñu jàpp ne ni personne ne sera inquiété parce que des dossiers quand même petro gis nañ ko fi le frère du président gis nañ ko fi gis nañ fi ay ay Prodac COUD gis nañ fi sax ay ministre ak directeur di reyante ci kanamu kilifa yi réew mi sëriñ bu mag a mag a mag te mujjul fenn kon loolu fii la mu mën a am kon ça veut que beneen côté bi lu la neex def bu la neexoon ñëw rey Aminata Diallo du mujj fenn waaye bu fekkoon ne keneen moo jog ñu yóbbu la justice parce que jàpp nga ne yaa yaa yor majorité mécanique mais na nga jàpp na ni majorité mécanique dana jeex de mhm. keneen dana ñëw de wala ñeneen danañ ñëw te mhm. ñun ñëpp nañ ko sóoraale képp kuy liggéey na nga liggéey te xam ne l'avenir va juger surtout que c'est un président jeune amoon nañ fi Senghor am fi Diouf am fi Ablaye Wade ñu ñëw en 2012 sénégalais yi ne alhamdulilah kii moom après indépendance la juddu kii moom il est une la donc du fi def waaye nag ñu ñëw ñu gis na mu jël paa yépp rangale leen ci wetam ne moom daal mbir mi daal soos yu yàgg yooyu moom la bëgg soos moderne yoonam nekku ci waaye nag nga dosage sax nga ne non naa jël ci bii jël ci bee waaye ay paa rek kee jaay parti am kee moom xam kenn xamul affaire bi nu mu mel jën la ak yàpp la kenn xamul waaye kee sa mbiram leer na ndax moom dañ koo joxe héritage mu mujjee poso bu mu reer mooy sunu secrétaire général xam nga kooku ba sam moom moo gën a garaaw bind na histoire kooku moom bind na histoire tax na ba xam naa ne Djibo yal na ko yàlla yërëm am na dëgg Moustapha Niass moomu xaw ma nu muy xoolee Ousmane Tanor Dieng ñoom ñaar nu mun a mun a mun a toogee chaque jour dama ko daan nax dama ko daan ko mais président Niass yow tamit waa ji nag xanaa waroo leen toog nag fa ngeen mujjee gis nga yàlla moom day atte dëgg kon nag yàlla atte na kon ça veut dire que fii li fi xew daal lu musul xew la ah vivement 2019 ba ñu soppi. mais vivement 2019 kooku ngeen di ŋàññee tey jii gis nañu ne moom euh, fi mu nekk nii si tànku ay inauguré la nekk euh, tey jii fi ñu toog di wax ma ngay inauguré arena bu nekk jam Diamniadio ki ñu koy waxee muy cité nouvelle boo xamante ne ñëpp dañ ne woon du génn te tey génn na kooku ngeen fas yéene jàkkaar loolu kooku ba ngeen di wax di wàcc ci mbedd bi comme ni nga ko waxee moom ma ngay tabax di inauguré. waaw xam nga inauguré yomb na ku mu neex nga inauguré. loolu yomb na waaye xam nga lan moo yombul. mooy ne sunu ndox bii ñu war a moom xam na parcelle sax def nañ marché te moom fa la dëkk euh, nu mu tudd Amadou Ba l'argentier la loxo ci poos fa la dëkk de loxo ci poos nay doon li nga moom euh, li mu ngi doon wax sax ay législative yi naan ay huit leaders xaw ma mais ñëpp xam nañ nag loolu waru ko say yëngal parce que ñëpp xam nañ ce qui s'est passé on est tous des politiques waaye gëm nañu yàlla xam nañ ne yàlla am na ñëpp xam nañ xam nga yow nga toog ba ay deux heures du matin nga génnee ay résultats xëy def lu la neex loolu moo fi xewoon kon loolu ñëpp xam nañ ko loolu gàcce la pour suñu Sénégal gàcce la pour suñu démocratie ñun xale yi waruñu ko reetaan parce que ëllëg dinañ nekk feneen ñuy xalaat loola te buñ ko xalaatee bu boobaa ñun sax duñu neex parce que dinañ bëgg soppi politique bi te ñun ñoo ko war a soppi ëllëg def fi politique boo xam ne ni politique bu gën a set bu gën a set kon loolu ñun ñëpp kenn waru ko reetaan parce que loolu day jouer histoire du deñ dañ koy bind dañuy wax ne ni ëllëg législative nii la demee woon Euh, en même temps bi muy wax climat social climat social du sunu ay vendredi climat social c'est les enseignants bag ñuy am 15 pour cent au Sénégal loolu mooy problème parce que enseignants yi presque toute at l'année liggéeyuñu la santé ñëpp gis nañ ba ñëpp léegi ñu ngi naan CMU bi moo tax santé bi nekk ci ay problème parce que fayuñu bor yi ah parce que euh, plan euh, gisoon nañ fi plan Sésame yooyu yëpp ñu ne fayuñu hôpitaux yëpp loolu mooy climat social leneen li politique la bokkul climat social mooy grève yu bari yeeg yooyu sunu ndox mii ñu war a am nga xam ne ni loolu moo gën a primaire maanaam dafa mel ni ci biir kër gi nga nekk ci biir kër gi tabax ba mu rafet def sa lépp te waa kër gi mu amuñu ndox bu ñu sangoo mbaa bu ñu naan loolu c'est basique pour un pays en voie de développement pour le Sénégal quand c'est un recul pour qui c'est que en gisoon nañ président mu sol tenue armée xam nga te boobu xam naa ni moom en diplomatie c'est sûr que ñu bëri dinañ wax ça mais bon je vais pas entrer dans que je suis sénégalaise euh, sunu la donc suñu réew aussi duñ ko mettre en pâture mais boobu c'était grave c'est une image très grave que ñi jàng relation internationale wala ñi def diplomatie baaxut kenn du ko def ci réew mais ana lu mu saafara 2012 ba tey jii 6 ans on eu le temps 6 ans pour tuyau euh, boobu nga xam ne ni président Macky ba mu nekkee ministre la ko la ko fa defal moo ko commandé woon nañu génnee histoire moo ko commandé woon jour boobu ba ma génnee benn émission la ma kenn wax ne ne je t'envoie un texte et tu vas commandé nga commandé tout ça 2012 mu ñëw mu rattrapé la mais 2012 ba tey ji on a eu 6 ans foofu la ñuy xaar inauguré neex na mais li ñuy xaar mooy bu ñu bëggee naan ñu naan moom waa parcelle loxo ci poos sa mu nga fa ah Amadou Ba mu fa moom mu nga fa mais Amadou Ba xaalis bu mu am yëpp na ci jàppale waa parcelle ñu am ndox ñu naan lu dul ay ndoxu camion citerne parce que ndoxu camion na kenn xamul nag ndox boobu wóorut it mun na sangu mun na fóot waaye di ko naan it wóorul de ndax xamuñu naka la demee kon nag ñun foofu lañ koy xaar ñu am suñu ndox am suñu courant bu ñu buggee faju ñu faju même si seemi wax nañ ne am na mais seemi nañ ko na dox na dox ba hôpitaux yi tamit duñ ci agoniser maanaam duñ ci def am ci ay bor yoo xam ne état du ko fayaat bu hôpitaux yi ñëpp di agoniser ñëpp di ñuuxu ñëpp di loolu mooy climat social te loolu la ñu war a régler mais inaugurer moom ku mu neex nga inaugurer est-ce que su ma déggee Aminata moo di ne les urgences sont ailleurs tey jii taara c'est bien beau débattre c'est bien beau mais tey urgence bi mooy sénégalais que ñu lekk suñu xiifee ñu naan suñu mare voilà merci beaucoup mais daal xam nga sa sa sa sama jigéen li tax euh, politiciens yi des fois ñu leen di xas c'est dommage parce que tey Aminta majorité mécanique boobu muy wax ca la bokkoon maa ngi fàttaliku ba ñuy lever immunité parlementaire u ñoom euh, euh, Souleymane Ndéné n'est-ce pas Ousmane Ngom ak Omar Sarr <laughs> je pense que <laughs> mi nga foon te majorité mécanique boobu si la bokkoon donc moo tax politique daal moom lu xaw a doy waar la euh, xam nga président Macky Sall tey jii ku waxal yàlla coow lee bari rek te coow li sax man mun naa ne ndakaaru la yem ndakaaru si la yem parce que quand euh, fii la fii lañu dajale ñi nga xamante ne ñoom ñooy intellectuels yi n'est-ce pas mm-hmm. fii exode rural bi daanaka euh, moo tax ñëpp fii lañ daje. ya ya ya les médias ya la concentration moo tax coow li bari. mais gis ne li nga xamante ne président Macky Sall mi ngi koy bu ngi koy liggéey di ko def fii Ndakaaru moom lay def rek si àll bi mais boo demee si àll bi tu as donc fépp ñu ngi koy gërëm di ko sant ça s'est répercuté durant les élections législatives gis nga bu ñu génnee région de Dakar teg fële élection législative le président Macky Sall a eu à l'intérieur de pays, a eu au Sénégal, sauf Dakar, 66%. Donc, tu vois que nous, ils l'ont plé plébiscité. Donc, pour vous dire que nous, dama doon débat dama doon waxtaan ak sama benn xarit ma ne ko mais gis nga réalisation à Dakar est-ce que est-ce que am na njëriñ pour pour pour pour un politique ma ne ko parce que ñoom duñu ko gis ñoom sensationnel bi la ñuy gën a gis si yooyu la ñuy gën a débattre di si di si rey seen bopp. mais c'est la capitale c'est la vitrine du Sénégal. c'est ça ma ne ko ma ne ko tey jii li président Macky Sall def si réew mi mais c'est extraordinaire li nga xamante ne ñu ngi koy inauguré tey aminta ma moom ànd nañu voyage ba tàyyi waaye lii de amul benn réew bu ñu ko gis si si si si si Afrique lu dul lu dul Maroc ak Afrique du Sud. infrastructure bu mel nii. mais est-ce que ñun soxla nañ ko est-ce qu'on en a besoin en ce moment. non c'est-à-dire que est-ce que les priorités ne sont pas taillées. non xam nga xam nga les priorités xam nga réew nan nga koy nan nga koy natte bi nga ñëwee li nga fi fekk yokk nga ko wala wàññi nga ko te yaakaar naa ne président Macky Sall bi mu ñëwee li mu njëkk a songu te mu te mu wax ko mais da ko def mooy tey saaku ceeb jaratu fi euh, vingt cinq mille dëgg la wala dëgg. les denrées de premier nécessité da ko wàññi gaz fan lañ ko fekkoon 6 000 francs tey jii moins de 3 000 nga am gaz te à gogo n'est-ce pas diwlin suukar mais lépp loo jël muy denrée de première nécessité président Macky Sall bu mu ñëwee daf ko daf ko daf ko kase carrément et puis maintenir ko quelle que soit la situation il a il a pu maintenir l'inflation kenn boobaak léegi kenn gisu fi lu lu fi yokk di dem waay waaye kooku xam nga ne jot na maîtriser kii bi te salaire. Euh, ndax maîtriser na ndox mi itam. non xam nga ndox mi ndox mi moom mi témoin la gis na ne euh, avant le président Macky Sall investissement dans l'eau defe naa euh, kenn gisu ko fi woon te loolu waroon nañ ko sóoraale xam nga dakaar yaa ko wax léegi concentration bi exode rural bi ñëpp fii la ñu ñëw day màgg nest pas construction yi di jëm kaw mais gouverner comme je dis c'est prévoir te Dakar mooy vitrine au Sénégal mooy capitale voilà c'est prévoir léegi nag gis nga le problème là le président Macky Sall l'a hérité bi mu ko hérité nag gis nga bi mu ñëwee il a des solutions n'est-ce pas à court terme et à long terme du dëgg à court moyen long terme donc loolu loolu mooy vision fexe na ba nga xamante ne nii c'est vrai nee na Thio Thio Thio Thio ba mais bul fàtte ne dafa créer KMS trois du dëgg au delà de tiwo boobu am na leneen lu mu fa dolli ñëwatee aussi boo demee ba bayax ñu ñu gas fa ay forage gis nga fan yi buñ ko branché yaakaar naa ne souffrance su sénégalais yi wàññeeku na du dëgg problème parcelle bi muy wax nii euh, si la si la ñu def forage Nord Foire beneen forage forage bi ñu def Nord Foire moom moo euh, régler problème côté ay OS Foire Nord Foire ak euh, une partie des Parcelles Assainies mu amoon beneen forage boo xamante ne moom la ñu waroon def sii euh, euh, nga xamante ne mooy stade amitié on a trouvé que dafa dafa dafa bëri fer n'est-ce pas forage boobu mënul woon fonctionnel mais donc pour te dire que ne et puis gis nañu également solution yi mu am à long terme si ndox mi investir si 500 milliards loolu mooy vision kooku ko kooku par exemple mënoon na ñëw di taf di yëngal ne voilà comme que damay dem si ay élection bàyyi rek ma kii. pompe ndox mi mu ñëw nit ñi jëriñoo ko mu jeex non non non xoolu loolu président Macky Sall dafa bëgg xool fii ak 30 ans. naka naka la ndox di doyee si biir réew mi. donc loolu mooy. loolu mooy loolu loolu mooy. <laughs> mooy plan Sénégal émergent. je je pense je pense que euh, uh-huh. li muy wax nii euh, amul foo xamante ne président Macky Sall defayee y' waaw ah da xool rek fu ñu jëlee réew mi ak tey fu ñu tollu si mbéy mi bi nga xamante ne moom mooy moteur de croissance au Sénégal xoolal tey fu mu toll. Mm, xoolal mbéy mi man ngay wax euh, Badara mbéy mi. quand on parle de famine euh, à oh, l'intérieur du pays. attends attends attends même aux États-Unis y a de la famine. il faut xoolal gis nga. est-ce que comparaison raison euh, la non non. soyons sérieux xam nga tey jii xam nga tey xam nga tey fépp am na famille. xam nga tey président Macky Sall bi muy ñëw si réew mi bi muy ñëw si réew mi moo tax vraiment mënuñu jóg di ko féliciter di di féliciter aussi son ministère son ministre de l'agriculture tey bu muy ñëw si réew mi euh, ba euh, li nga xamante ne moom la ñuy gën a béy si réew mi muy gerte mais ça n'a jamais jamais jamais. atteint 600 000 tonnes jamais tey jii ren ñu toll si 1 million cent mille 15 tonnes ba nga xamante ne da jaay ba dese sa kër ceeb bi la même chose musul attendre li nga xamante ne moom mooy moom mooy. tey on de 1 million de tonnes. mais kon mooy problème bi ba nit ñi kii wuñu instant bi nawet bi ñu bëri ji nañ seen gerte gisaguñu euh, ah, taw. léegi loolu kan la. mais suñu gisul taw est-ce que mënuñu woon am ay kii yu ñuy permettre. ñu ñu arrosé non il faut arrêter xam nga pour la pour l'arachide là am na si kii yoo xamante ne mënoo ko béy contre saison mënul mënul am arrosage lu dëgg donc c'est des yoo xamante ne nawet rek moo la ko mën a may te nawet nag. ñun jaam jaam bi lu mu mën a def mooy. sabab euh, ak présent Macky Sall lu mu mën a def mooy mettre quand même les moyens qu'il faut prendre les dispositions nécessaires. Mm-hmm. pour que ñu am. Euh, agriculture bu baax def na ko. jox na jiw doy. <laughs> motoriser na l' agriculture. Euh, euh, je pense que ne nag nañu ñaan yàlla mu taw ba mu doy. d' am na dëkk yu taw. Mhm. am na dëkk yu tawul. mais nañu ñaan yàlla mu mu taw ba ba doy. comme ça. d' accord nourriture bi doy. d'accord Aliou Badara dinaa ñëwaat dinaa ñëwaat fi mu nekk yaa may yaa ngi may waaxu yaa may waaxu mais dañu am beneen point boo xamante ne itam dinañ ko évoquer ndax euh, euh, Aminata mi ngi naan crise sociale crise des valeurs itam nemmeeku nañ ko ci biir réew mi te ñu bëri dañu jàpp ne la faute incombe aux politiciens Euh, ndax tey jii suñu demee ba le président de la république wax ne war nañu xoolaat naka la ñuy gérer internet beeg yi ni mel ndax saaga yi nga xamante ne moom moo ci jib te en général saaga yi suy jib entre politique rek lañ koy euh, gis muy euh, gën di bëri doole tey jii le président s'en est rendu compte mais les gens pensent que c'est trop tard bi mu ciy rendre compte ndax peut-être que ça l'arrangeait moo tax il n'avait rien dit mais maintenant c'est contre moo tax mu jug di ci wax ben évidemment euh, c'est comme ça que ça se passe toujours mais bi ngay wax ay euh, euh, crise des valeurs et je crois que tey ñi indi crise des valeurs c'est le président en premier ndax moom fu ne nii moom moo légaliser transhumance te ñun ba ñuy def campagne 2012 ànd ak moom bokkoon na ci ñu gënoon bañ transhumance te wax na ko nee na transhumance ay xar ay ay ay ay jur ñoo koy def mhm. moom président Macky Sall moo ko waxoon nañu dem ci rupture nañu indi leneen lu bees politiciens yi ku nekk fi nga far nga nekk fa boo paree da nga dem nga able nga bàyyi ñeneen ñu ñëw moo gën transhumance ci def affaire xar ak béy léegi nag moom foog naa ni moom mooy entretenir euh, nu mu tudd xar yeeg béy yi noonu lañ mën a waxee ndax moom moo leen tuddee woon noonu am na ci koo xam ah ci satu buur taxaw fi ne man de bu ma nammee transhumé nañ ma dóor bal man de ba ma demee Saalum barki démb ñu dem fa def ay kii maa ngi wax waa Saalum waaye kooku noonu waxoon ne moom bu naree transhumé nañ ko door sa dem na satu buur la ah ay mbokkam mais nañu ñëw indi fii fetal ko ndax doomu buur nag buur la te buur nag du du du du yëfu jaam wala leneen buur dañ ko war a respecté te ñooñu ci famille bu baax la ñu bokk kon moom bu fekkee ne moom mooy mooy lu ñuul li ci soow li ci ci biir um, euh, euh, seen seen famille boobu mais nañ ko indi saalum ñu fusillé ko loolu moo tax gis nga àdduna bi euh, ñun ñun politique yi dañu war a def attention dañu war a def euh, dañu war a xam ne ni dañu war a uti métier xam nga am na ñu bëri dañuy wax ne ni yéen yaa ngi dem jàngi kërti kërti dañu war a dem jàngi uti métier comme ça politique bi doo ko def métier am na ñoo xam ne ni gis nga bu ñu jógee ci poste bi ña ngay dem ka ca topp uti beneen poste te tey nag malheureusement ki ñu xalaatoon ne moo ñu koy changer moom moo ko légaliser finalement loolu moo indi saaga yi loolu moo indi saaga yi ndax ku taxaw ci télé Sénégal yëpp di la nga ne man bu ma nammee transhumé nañ ma fetel ma dee kooku kat bu bu defee loolu nit ñi nañ ko saaga ndax duñ ko gis ba fetel ko ci télé bi lañ koy gis waaye leer na ma ne am na sénégalais yoo xam ne bu ñu daje woon ak moom mu xam ne lépp dëgg la ndax moo ko wax moo ko wax donc loolu moo indi insulte yi ba pare nag ah yëf yi ku nekk di saaga ndax gis nañ fi ñoo xam ne ni nekk ay député bokk ci am ay post yu baax bokk de l'autre côté di saagante ay ministre di saagante kon ñooñu bu ñu saagante est que sénégalais yi du ñu saagante kon noonu la demee rek société bi yëpp la société bi yëpp la mais crise des valeurs boobu moo indi loola moo indi loola ba kenn faaleetul kenn kenn euh, nabatul benn politique voilà kenn nabatul benn politique politique boo gis da ngay ne ñoom ñëpp benn lañ parce que ñi fi nekk bari def seeni bopp ay xaraki béy ñoo bari nag ci mbir mi loolu moo tax sénégalais yi gëmatuñ leen kuñ ci wax rek ñu saagale ci internet bi loolu nag ñëpp a ko mën mën a régler le président en premier moom mii légalise transhumance ku jóge fee rek ñu indi la nii <coughs> boo ñëwee am dara loolu nag loolu foog naa ne moo indi lépp te loolu je crois que ah au nom de la rupture war nañu mën a ba léegi am chance ba léegi jàpp naa ne mu war a mën a ressaisir ah jéem a xool nu mu koy saafara te saafara bi loolu kese la mooy ne ay transhumance ak yooyu ku jóg rek de côté loolu kese moo koy régler mooy ne ñu régler nit ñi ku nekk fi nga far nga far fa loolu kese la mais saaga yi ñëpp xam nañ ne saaga neexut saaga baaxut ñun ñëpp xam nañ ko mais nag ñi ngay saaga nag bu fekkee ne nag ils sont saaga waabal danga leen di saaga parce que nit taxaw ñëpp def ay vidéo dem te ay télé ñëpp seetaan la nga ne man bu ma namee def lii te nga dem def ko kooku moom buñ la saagaa yaa ko def te na nga war a xam ne danga am ay jabar am ay doom xam nga xale yi nekk fi génération yi di ñëw ñoo ñëpp da nga leen war a seet da nga war a xam ne archive la voilà archive la histoire dañ koy bind mais tey euh, Alioune Badara euh, tey dafa am ay corps yoo xamante ne njiitu réew mi daf ko fi tegoon pour contrôler internet boobu ngay wax tey jii et c'est-à-dire que suñ demee tey ba njiitu réew mi jug di ci yëkkati ay kàddu moo di ne corps de contrôle yooyu dañu fay ci mission bañ leen euh, dénkoon ci crise des yooyu itam ñu wax ne politiciens yi lañ ci gën a joxoñ ba tey ñu bëri ni ñu nawloo woon politicien dindi nañ ko bokk waaw xam nga xam nga tey ji njiitu réew mi dafa nekk ci rôle am parce que moom la Sénégalais yi wóolu fal ko donc bu demee rek ba nga xamante ne euh, gis na loo xamante ne su su ci waxul mën na jéggi dayo daf ciy wax mais est-ce que waxu ci trop tard léegi léegi beneen bi xam nga xam nga loo mën a contrôler contrôler yow yaa ma gën a xam li may xam nga lu mel ni Facebook xam nga am mënoo si am mënoo si am contrôle lu mel ni euh, li nga xamante ne moom mooy WhatsApp les groupes là mënoo si am control c'est des kii qu'on peut pas xam nga mun nga maitriser les sites la les sites d'information la nga xamante ne mën nga charger administrateur site bi nga ne ko euh, vraiment saaga waratul génn yow di sa site mu mu surveiller ko dootul génn wala bu génnee nga nga nga teg ay sanctions ci koom mais réseaux sociaux yi en tant que tel muy Facebook ay euh, YouTube ay euh, beneen bi. Euh, mais loolu kenn mënu ko contrôler du dëgg mais nag wax na ci xalaatam te bu sañoon loolu ñun xamuñu ko du dëgg loolu bi nga commencé am bi nga xamante ne tey ji PDS ak ñenn ñi dem nañu opposition. parce que saaga yi nañu waxante dëgg. kan la ñuy saaga kan la ñuy saaga. saaga yi yàgg na waaw mais kan la ñuy saaga kan la ñuy saaga. saaga yoo gis. saaga yi ci président Macky la jëm ak ci gouvernement bi. au temps de Wade on avait vu. waaw saaga tey jii ils se sont président Macky Sall s'il te plaît s'il te plaît je je vous dis que ne et en plus. je vous dis tey jii saaga yi gën a bari man man sax du ma koy du ma koy ubbi parce que yooyu quand kom comme que du ma ko def. te bugguma xam sax ku koy def dafay daw sama yaram bugguma ko sax gis parce que toog di saaga ay ay président de la république ay kilifa yoo xamante ne dañu yor réew ay kilifa diine loolu ñaaw na loolu képp ku ñu yar yar rek sa biir kër sa baay yar la sa sa ndey yar la war nga koo jombale sa bopp transhumance su muy wax man dama jàpp ne dama jàpp ne euh, tey jii ñun ay politique lañ dañuy dem quand à la de de de sifrage de voix tey jii moom Aminata lan la wuti woon Saalum dafa defe woon tournée. pour mm. wut ay nit. nit ñooñu muy wut mais dafa am ñoo xamante ne feneen lañ nekkoon ñëw di ko fekk si ñooñu mën na leen xas tey mais ñooñu dañu jàpp ne ñenn ñi dañu jàpp ne kaan euh, ki nga xamante ne moom lay jàppale xëj na dañ ko teg lu jaaduwul wala xëj na euh, gis nañ ne la muy def. Euh, neex na leen mën na liggéey ñu jóge feneen ñëw jàppale leen dem pour le président Macky Sall dem pour la PR bu nit jógee feneen que ça soit PDS wala parti socialiste wala fu mu mën a doon ñëw di ko jàppale na ko jàppee comme moom ni muy jee ay nit Saalum wala Tamba wala fu mu fu mu neex donc nañ ko jàppe noonu te xam ne waay waay nit koo xamante ne dafa ñëw euh, waaw nga commencé mu ne ah kii day on ma yaakaar si moom commencé ne ko di di ko opposé wu mais dem ba gisal boppam gis li président Macky Sall def si réew mi waay waay mu volontaire ne dama koy jàppale mais ay sotu loolu war kii awoon loolu war naa mën a am non yow tey au moins war nga reconnaître ne eh, grand travaux yi nga xamante ne président de la république def na ko si réew mi mais ñun mus nañ xalaat ne war nañ mën a am teer mus nañ ko xalaat mus nañ xalaat ne war nañ mën a am pont bu bu dem ba Gambie mos nañ xalaat ne war nañ mën a am pont bu traversé Foundiougne ay pont yoo xamante mais ay infrastructure yoo xamante de dernière génération mosuñu xalaat ne dinañ ko am tey jii président Macky Sall di ko def xam nga lan ngay def dañuy may xaalis ñun waa Walf dem service commercial rek ñu jox leen une de temps ngeen wax lu mel noonu président Macky Sall di ko def waaye waay lu ma ko contre contre ah sañ naa nag ah def prise de conscience mm-hmm. ne ay la yoon kii day ah bu ma ko jàppalee nag wax dëgg yàlla Sénégal dina mel ni Paris ma ñëw jàppale ko waaw d'accord euh, dernier point bi rek ñu évoqué rapidement Charles mi may def signe ne heure bi euh, jeex na ñi ngi jëm ci ay élection te jotagul mais dafa mel ni campagne bi commencé na tey jii rawatina li ko gën a teelal tàmbali mooy wàllu parrainage bi nga xamante ne dugg nañ ci mais gis nañu ne ñu bëri ñu ngi nemmeeku ne y des imperfections yenn yoo xamante ne euh, Euh, tey jii loolu du leen gàllankoor yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi am candidat boo xamante ne dogaloo àtteem rotogul xamagu leen ndax dina doon candidat am déet. waaw tamit te euh, yéen a ngi campagne di jéem ut ay signature. waaw dinañ dinañ campagne ndax justice dafa am lu muy doxe yow na boo jàppee boo jàppee ne yow dangay ngay yore sa calendrier nga ne yow euh, Khalifa Sall bii tel date dinaa ko def lii dinaa ko def lii na nga jàpp ne ni mbir mi du doon lu yomb ndax yoon yi bari na. ci biir justice yoon yi bari na parce que droit la droit nag li mu lay may am nga sax ay voies de contournement xam nga li ñu jàpp ne mbir mi jeex na jeexagul le 30 août bu passé xam nga cour suprême am na waaye après cour suprême am na leneen lool cour suprême du ci pas doog de ci biir cour suprême am na beneen beneen kon yëf yi jeexagul kon Khalifa Sall il est toujours candidat et il est candidat te du ñu xaar ba parrainage bi egsi parce que parrainage bi li ci nekk ci ay ay sooke dafa bari xam nga nga ne 65000 signature Awa Diop yow mille personne bind lan moo la wóor na ni yow Adama Diallo mii signé dëkk ca Kolda lan moo la wóor na ni lii mooy signature du carte d'identité est-ce que a génn am na ñoo xam ne seen bos réer na ci diggante bi mun nañ fi changer signature sunu carte d'identité yii génnagul te kenn gisagul dara léegi loolu ku ko mën a ku ko mën a surveiller bi ñu demee Saloum on compris que nit ñi ci même ci àll bi lii de ña ko def def nañ ko ña nekk dans le monde rural mais xamuñu sax la def lan la ndax ni muy sooxee ci ñun noonu lay sooxee ci ñoom parce que mun nga dem ci benn dëkk ah nit ki nekk fii signé mu dem feneen keneen ñëw mu signé ko même si dañu wax ne ni mënoo signé deux fois mais loolu problème la parce que nit mën na signé keneen ñëwaat yow signé la te yow doo ko yëg donc yëf yi kenn mënu ko surveiller comme ñëpp ni ñu ko waxee kenn mënu ko surveiller hmm. xanaa yow nga bëgg am sa ay candidat bopp te loolu la ñëpp njort ndax looloo fi amoon ci législative yi dañoo xëy rek gis ku ne nekk candidat ñu jox la 15 millions nga dem déposé xam nga loolu yomb na waaye bi parrainage bi du yomb ci ñun du yomb ci ñoom mais du ñu toog di seetaan dañuy dem ci biir àll bi expliquer leen c'est quoi le processus que benn nit rek nga am droit. mais ministre de l'intérieur nee na c'est très tôt. kenn waxul kenn waxul un million. de signatures ko kenn waxul parce que du xaar ñoom ñu ngi dugal seen ay fiche xam nga ñun ci dëkk yi lañ dëkk. man Grand Yoff chaque jour ma dajay nit ñu ne ma diw nee na waaw ma signé ma ne ko signé la kon parrainage dafa jot autant ñoom ñuy jël di wër di jox nit ñi ay gis nañ sax ci internet ay nit yu ñuy jox ay mille ñu ne la wala 5000 kaay signé fii waxatuma la ñeneen ñi kon nag signature yi du yomb ci kenn te xaw ma kan mooy toog ay 10 millions de candidats parce que candidats yi on pensait qu'avec le parrainage du bari finalement finalement bari na mm-hmm. te ñii déclaré gul ña ngay ñëw kon imagine toi ñu am ay ay quarante cinq candidats wala quarante sept candidats ku nekk soixante cinq mille signatures soixante cinq mille signatures tu te rends compte boo ko multiplier par quarante sept xam nga loolu ñaata la loolu dafa bari loolu temps bi ñu ko février euh, mooy mooy élection yi kon nag dana sooxee ci fépp te sénégalais yi tamit du ñu seetaan ñu choisiral ñu suma ay candidats maanaam ci parrainage bi ñu ne diw moo jàll diw moo jàll kon processus boobu ñëpp dinañ toog seetaan ko ñëpp dinañ toog ñëw surveiller ko ba xam ku nekk li nga ci def lan moo ci sooxe donc du yomb kon pré campagne fii lañ ko fekk d'habitude heure bii la ñëpp di pré campagne te foog naa président moo njëkk def pré campagne ndax nee na léegi inauguré ak transhumance loolooy programme am te mu ngi ci programme am inauguré ak transhumance ak emprisonnement boobu moom mu ngi koy jàllale bu baax a baax ci ci pré campagne suñu pré campagne mooy suñu candidat socialiste bi ki nga xam ne ñëpp ne woon doo nekk candidat socialiste par yàlla def mu nekk candidat socialiste. yéen socialiste amu leen candidat kenn mënu ci dara Khalifa Sall lay candidat ah. de tous les socialistes et pris de justice de tous les euh, de Senghor Khalifa Sall mooy seen candidat lool la yàlla def. loolu la yàlla def <laughs> euh, tey jii euh, pré campagne boobu tey jii ak parrainage bi tey jii est-ce que du nu mu tuddati changer les règles du jeu quand parce que coup d'envoi bi jotagul ñëpp ñu ngi ci àll bi di ut ay signature ak yi ni mel mais. solvabilité boobu si boppam sax mooy poser problème. voilà je pense que xam nga Amin Aminata nee na Khalifa dañ koy empêcher pour mu doon candidat wante yoon jeexul maanaam ñi ngi def ay recours rek. xam nga kon yéen tamit yéen a ngi kon non ñoom. <laughs> Eh. way waay foo amul espoir boo wóoluwul sa justice mais lu tax nga fay def recours. c'est contradictoire man je ne peux pas comprendre ñoom ñu ngi yaakaar justice bi bu te <laughs> bu justice tranché ñu ne voilà te te moom ngeen yaakaar donc il faut être cohérent quoi si sama xalaat mm-hmm. xam nga fiche aussi man day wax dëgg yàlla man de man man maay le plénipotentiaire du département de Dakar de Benno Bokk Yaakaar man fiche yi moom xaw ma nu mel très sincèrement musuma koo teg bët xaw ma ko parce que fils bi gis nga ay te euh, amul amul benn foo xamante ne nii. Mhm. biir département Dakar bu nga xamante ne man maîtriser naa ko am na ku yor fiche naan ko signal ma kooku moom ku ma tegaloon kaamil. ma dóor si ne amul. Mhm. bon en ce qui concerne maintenant la parrainage xam nga parrainage kii ami mi ngi wax naan candidat yi ñi ñi déclaré kii bëri nañu candidat yi bëri nañu candidat yi bëreeguñu de ñi déclaré ñoo bëri. ñi déclaré ñoo bari. mooy c'est-à-dire ngeen gor daal ñu bari. <laughs> non c'est-à-dire que cest kii awa awa mais gis nañ fi dem nañu élection législative yi passé mhm. mais ay ancien premier ministre voix ancien premier ministre kooku tey bu dee candidat la dix mille voix mu war a uti soixante cinq mille voix ah du yomb de donc kooku est-ce que il sera candidat te bu amul bu amul la nombre de signatures requis donc foofu laay waxee. kon le nombre de candidats yéen fi mu ne xam ngeen ko ñi ngeen soxla. pour lu ko nan lañ koy xamee. <laughs> arène nationale bi de ibbi na. non non s'il te plaît nan la ñuy xamee que par exemple ñan ñoo war a doon candidat. dañu ne non bi wax dama dégg rek nga ne ñi bind bëri na waaye du ñu pay candidat. non uh-huh. parce que tey jii man gis naa ñoo xamante ne en âme et xam naa ne mënuñu am sax mille personnes. te nee nañ candidat lañ. loolu laa la wax ne la. Uh-huh. bu fekkee filtre bi. il faut nga am 30 millions am na ñoo xamante ne nañ candidat lañ te amuñ 30 millions caution te caution bi dañ ko wàññi. te nee nañ candidat lañ am na ñoo xamante ne amuñu mille personnes te war a war a ut 65000 signatures ne candidat lañu te aussi ma leeral ami xam nga préfet dafa woote dafa woote bi mu wootee mu expliqué département Dakar naka la parrainage bi di doxee mhm. à tous les niveaux commune arrondissement département ba amul benn parti boo xamante ne nii boo xamante ne yaa ngi dugg si parrainage te doo am plénipotentiaire bu la toogal si niveau boobu. d'accord ya papa. merci beaucoup euh, Aminata Diallo tax du yomb dina <laughs> waaw <laughs> donc donc mais mais pas peur. mais pas peur xam nga amul problème. bu fekkee ne mën ngeen am. kooku noonu gisee promotion transhumance. kooku peur. ah yow yaa ngi uti ay transhumance kay. waaw yaa ngi uti. dem nga ba Saalum bi déedéet ñun uti wuñu uti wuñu Souleymane Ndéné xam nga ne duñu dem jëli Souleymane Ndéné Souleymane Ndéné dañ koy yóbbu Saalum Diallo Aminata Diallo honorable faree ci parti socialiste des valeurs di jaajëfal bu baax honorable Alioune Badara Diouf faree ci alliance pour la république di jaajëfal bu baax oustaz Assane Diouf mi nga xamante ne moo faree woon ci wàllu coordination bi du côté de la régie et de la réalisation technique Charles René Fall ma koy jaajëfal bu baax di leen jaajëfal yéen ñi safoo leeru jamono wal fajri dig daje alarba bi di ñëw bu soobee suñu borom di leen ñaanal fanaanu jàmm ak salaam te di ko sàkku ci yéen